assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa mbokk yi ñu topp ñu baye xel ala kulli hal ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen di siyaara ñu ngi leen di ndokkeel leen jaajëfal ci top ngeen ñu top da ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu boole ñu defal ñu yu aduna ak ala ala kulli hal seen jotaay asraar ki leen ko defal seen mbokk Serigne Mamour fa do Asraar tay ñu ay yéen jotaay bu am solo bo xam dañ leen a jox lo xam da fay dindi chat na yem sax ci ak badi nit ñi. ak seen wax incha allah képp koo xam ne tam cadda laa jàpp moo xam làmmañ wala bët bu jëfandikoo siro bi incha allahu taala yàlla dana ko dindil ci kattanu yàlla ci barke alquran karim li na day secret bu yéeme muy xaatima iyakaar ta am na mbokk mu ko doon laaj waaye dañuy indil masalas bi dañu ko leeral bu ko defee indil leen ci yoon nga xam ne donte ñu bëri mën nañ ko xeeb ngir euh, min luñ ko miin waaye lu bari taw yàlla li daal suro bu màgg boo xam ne cat moom am na ci solo lool insha allah taala ba ngeen may ndeyooru jëfandikoo bi ñu nekk bi na leen taktu sol faare bari kulli aaya way yàkkaat loolu rek laay wax loolu na cat waaye ñu bëri xeem nañ ko ngir miin buñ ko miin ci seeni bët loolu nag ëpp naa def waaye nit ku ñu moomee lu miin rek xeeb ko waaye li de maa ngi loolu lañ ci ànd muy xaati muy faate ba ànd koy yàkkaatoo waaye bii nag yoon lañ indi lii day ànd ak xawaatim bi nañ leen indil xawaatim bi incha allah waaye sootul fatiha kon maa def kulli aaya nga dugal ay yakkaadu li seen kafaru aaya ba mu jeex euh, su ko defee nga bal ko xaatim bi dañ leen indil xaatim bi après nga sank juróom-ñaari fan lii moom cat amul lu ko ci man incha allahu taala waaw incha allah léegi nag lii fatiha bu jàll ay yakkaadu ëpp naa xeeb waaw ndax bëri na mbokk yoo xam ne am naa ba ñu nekk donga lañ ko dañ ko tàmbalee bindoo yooyu. min ko min ko min tawen xal ko ay ëpp naa xeeb lii dong amul lu ko man ci chat rawati nak boko bolé ak xawaatim bi xawaati boko bolé ak xawaatim mom balay do inshallah incha képp ku jot japp bu koy sangoo muy dañ inshallah taala xawaatim bi ñuy dalen ko mo nek ni moy xa musallas bi nag lañ indi xeyna dañ lañ leen indi daal murabba bi yoy musallas ay yàkkaat inshallah nek allah nekk bu am solo lol nak xawaatim bi dong day dindi chat xawaatim bi kasse bu nee nga ñu mindi faade ban wa ma bu yàkkaatim kese boo ko mindi da ngay wut juroom ñaari nen loolu ko woy yakkaat da ngay ubbee faatiha ubbee faatiha ba pare nga bind xaatim bu ñaari nen def ko ci saafara bi sangu juróom-ñaari fan saa sangoo toj benn nen incha allahu taala bu dee xaatim bi kese moom moom ngay bind loolu du waaye bu bu fekkee moom saaru ngay bind saar bi ak ak xaatim bi loolu ba neexee jëm nga ko ci def waaye ba neexee tam nga def ko ci incha allahu taala waaye alaakulaa lii lu am lool mbokk ñun laaj na xaatim mooy yaakaar moo tax ñu nañ profité rek xool xool xaatim bi. ndax yitteel na ko bu ko defee ñu euh, defal leen ci euh, euh, waxtaan lañ ci bu am solo di leen ndax suñu yéene mooy laay biir ak yéen kon bu ñu xamee seen bëgg rek dañuy war dañu dox incha allah leen rek dañuy sàkku ci yéen mooy ngeen ñaanal ñu fan gudd ak wér jërë ngeen def asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu